asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi ci ñetteelu fanu karawaan nekk ci dëkk bu tedd nekk ci dëkk bu sell di boxaatul mubaaraka di njaareem ñetteelu fanu karawaan ànd sëriñ Serigne Modou Mbacke si moom sëriñ mustafa si mi nga xam ne moo jiite karawaanu màggal Touba tey nag ñu ñëw ci ki nga xam ne mbokkum seexu naa seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul la di sëriñ Afia ñu nekk fii ci njaareem ci pàkk bu tedd bi nga xam ni. fi la ku tedd ki di Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul def fukki at ak juróom yoo xam ni génn ko fii mooy fi nga xamante ni fi la Serigne Touba tànn dëkkaale ji borom subhaanahu wa taala nemmeeku doxantu caravane bi nga xam ñu ngi koy def jagleel ko ki nga xam ni moo di Serigne Afia mbake sëriñ Afia nag bokk ak Serigne moo tax tey jii ñu ñëw àndante fa sine gëstu fii nga xamante ni moo di Buqaatul Mubaaraka di njaareem waaye itam Serigne Afia fii ci njaareem loolu nag tax na ñoo ngi taxaw kenn ci ñi nga xamante ni ci doomi dëkk bii di njaareem lañu di gëstukat di communicateur traditionnel di Serigne Mourtala Gueye Mourtala gannaaw bu ñu nuyoo ziar la pare ndokkeel la jaajëfal la mel ni karawaan bi ak si nañ njaboot gépp ci njiital Serigne Saliou Mbacké teeru tatagal dalal li nga xam ne moo di karawaan bi fii ci fi suñu ginnaaw di kër Serigne Afia Mbacké lan nga ñu mën a leeral Serigne Afia digganteem ak pàkk bi ñu nekk di njaareem waaye tam digganteem ak ku tedd ki di Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ci ak tënk. ñaanal borom Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool mbakkite ànd ak wér ndax dund bu amee njariñ yàgg ci gën. kon Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg ci wér. di siyaare baax ni nga ko waxe e, pàkk bii nu nekk siyaare borom pàkk bi mu bàyyi koo fi léegi ñaanal leen waaye wax ak yéen ay kàddu ci jëmm ji ngeen xeeñtu si. muy sëriñ Afiya Mbakke Ahmadul Maxtaar imaam rakki sëriñ Touba Xadim Rasoul euh, euh, nuy ñaanal sëriñ Saliou mi ab xalifaam te tooge jotaayam te mat ku sëkk sunu borom guddal aw fanam te yokk ko moom itam li nu ñaanal Cheikh Mamadul Muntaqa noo ngi koy ñaanal di ko wax li ñu wax Cheikh Mamadul Muntaqa ndax dundam moom it dafa am njëriñ te dund ba amee njëriñ yàgg ca gën mu euh, teg ci kër sa ñaafe liggéey bu rëy boo xam ne kenn dootu ko fàtte. kon yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko wax nga dëgg sëñ Moussa fii ngeen ñëw mooy boqantul mubaarak pàkkub Cheikhul Khadim wax nga ko léegi di kër gi nga xam ne nii mooy kër rakkam sëriñ Afiya Mbàkke Ahmadul Maxtaar imaam moom maam Moranta Sali moom maam Mballa Aysa moom maam Maara Mbàkke waaye ñaari yoon la ñëw ci maaram ni ma la ko waxee léegi ndax danga naan maam sëriñ Afiya moom maam Mor Sali moom maam Balla Isa moom maam Maaram Mbakke waaye maam Mor Anta Sali waaye maam euh, Serigne Afia moom maam Soxna Anta Ndiaye Mbakke moom Ibrahima Awañang moom maam Maaram Mbakke mu ñëw ci Maaram ñaar yoon te Cheikh Mouhamadoul Fadal daana wax ne booy li mbokk gi ba yem ci Maaram na nga fa yam ndax mooy suñu xadd naan kon euh, Serigne Afia yoon la ñëw ci Maaram. di doomi maam soxnaante Njaay Mbàkke jàmbaar jooju ñëpp xam ci yoonu murit ndax taxawaayam waaye maam Morant Sali mi nga xam ni moo meññ suñu yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikhul Xaddim mu bokk koog moom euh, ni ma la ko waxee léegi rek euh, maam soxnaante Njaay moomu nag euh, xam nga ni Yaasin Sibi ak Aysa Sibi ak saajo Sibi ñoo bokk ndey ak baay te Yaasin Sibi ak Sadio Sibi ak Aysa Sibi Yaasin Sibi moo jur Kandi Saw Ibrahima Awa Niang jël ko am ca Serigne Ibra Kandi Mbakke ak Thierno Kandi Mbakke Ahmadou Kandi Mbakke ak maam Soxnaante Ndiaye Kandi mii nuy wax maam Soxnaante Ndiaye nag ñu fab ko jox ko maam Morante Sali moom maam Ballan sa moom maam Maaram Mbakke mu loo ca Serigne Mbakke Anta teg ca maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan teg ca Serigne Afi Ahmadul Maxtaar mii ngeen di xeeñtu si ak Soxna Faati Anta seen jigéen ba waaye ñoom eh, yaakaar naa ne sëñ Moussa. ñuy ñu jiitu ci sëñ Touba li wax li waral ma wax loolu mooy euh, maam Cheikh Anta ak sëñ Afe euh, seen waajur wa maam Soxna Anta Ndiaye euh, ni mu ñëwee kër Serigne Touba mooy Serigne bi ci jëmmi boppam di maam Mor Anta Sali moo doon séentu gan ñu dem ba waxtu wa jot gan ga ñëwut ay war dugg te moom mu doonoon ab jigéenam boo xam ne moo waroon a wàcce gan ga mu daal di laxasaayu faj gàcce ga na mu ko faje mooy dafa wax ne maam. Mor Anta Sali dagan na ma ñu ne ko waaw mu daal di muur boppam nu daganal diggante ba mu dugg ci biir wuutu gan nga waroon a ñëw loolu lu jafe la ci jigéen ñi léegi waaye ba mu fa defee diirit ba gis ne sangam bii muy lëggéeyal géej la ku ne xaj na ci te ñëpp mën nañ cee jariñu ca la ko wax ne ko sang bi dama bëggoon nga may ma ma dem tànni rakk ju ma àndal liggéey bi sa Maam Sali jox ko ci ndigal mu dem Mbusoobe eh, tànn nag jàmbaar ji nga xam ne moo dund fanweeri at ak ñett di borom liggéey bu rëy bi di soxna jaara Buso indi ko biir kër Maam Mor Anta Sali loolu it sëñ Moussa yombul te maam Soxna Anta Ndiaye Mbacke moo ko def loolu tax nga dégg ca way wa sëriñ Moussa ka naa ko nuy ji ay dëkkandoom nuy ji mbokki jigéenam soxna Anta Ndiaye mbokkum taala Anta mam kon Eh, jëf jooju nga xam ne jëfal na ko Maam Mor Sali nag noppiwut di ko ko jëfal ba keroog bi Maam Mor Anta Sali ci wuy ji dëkkaaleeg boromam mu dégg muy dénkanteeg Serigne tubaa ay kàddu yu am solo ci wuuteem ah, ca la daldi nag jàpp ci loxo mam Cheikh ak sëñ Afi mii ngeen di xeeñtu si ne leen nag eh, seen rakk seen mag ju baax jii lii ma dégg seen baay di ko wax bu leen ca kenn jiitu tekki ñaari lam yu mu takkoon. jébbal benn bi sëñ Afe jébbal benn bi maam Cheikh Anta ñu leen dem leen jébbaloo ko ci seen mag ju baax ji looloo tax maam Cheikh Anta doon wax naan bi nuy jébbalu ci sunu mag ju baax ji xamuñu leen moo di njëbbal euh, kon jàmbaar jooju ngeen xeeñtu ci mel ni ñi ngi tàmbali waxtaan wi waaye daal ngeen xam ni euh, ñëw ngeen ci pakk boo xam ne mooy pakkub Cheikhul Khadim wax nga ko léegi ñëw ci barabub Cheikhul Khadim ñëw ci tawféexi Serigne Touba ñëw ci fi mu def fukki at ak juróom wax naa la ko léegi xay gii ngay jàkkaar lool fi la toogoon euh, euh, wax ni jullit war a dëgg-dëgg wax ni naa war a dëgg-dëgg woolu sëñ mat Lamine Diop Dagana moo jàngal ko alquran saar wu mu toll mu firi ko daal di gestu xay gi mu toog ne maa ngi fi waaj a yàgg ndax xay gii moo ma ko xamal maa ko fi jëmbatoon te tey maa ngi ciy euh, féexlu dugg ci néegu boppam bi ñibbi aljana wax nañ ne kàddu ya mu mujjee wax nag sëñ Cheikh ko Diop mooy neel sa ñaafe Mbakke nay jiite jumaa ji ak gàmm yi. kon jàmbaar jooju ngeen seet si di sëñ di ko gëstu maa ngi jégalu ñëpp ci waxtu waxat bi jërëjëf. neel sëriñ Afia la wax sëriñ Cheikh Fatako Diop del jiite jumaa ji waaye itam di jiite gàmmo gi loolu la ko seexul xadim njëkk a wax moom la wujjee wax sëriñ Cheikh Fatako Diop fii ci njaareem tànn dëkkaal yeeg borom subhaanahu wa taala Cheikh Moustapha jëlee ko fii yóbbu ko njaareem kon mbokk yi yéen ñi ànd ak seen site internet Touba Info lii mooy li nga xamante ni. len la ci gëstu bu leen doon defal ci buqaatul mubaaraka fii waaye itam jàmbaari Serigne Touba ja rakkam ja di Serigne Afia ànd ko karwaanu màggal Touba édition 2019 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.